bi mooy li nga la def ko ki nga adversaire bi jeex DJ DJ DJ DJ Zou Killer DJ Zou DJ Zou Killer bii nag parir door la soxna Boy Niang moo ko <laughs> jox na ko jigéen ju baax ju nu jural soxna Cheikh Sadbou jox na ko jigéen ju yiw jigéen ju jàmbaare muy soxna Boy Niang da xam ni ca Cheikh Saad Bou rek la yaakaar jox na ko jigéen ju nangoo muñ ma bëgg waa parcelle ngeen tàcc loolu bu baax booy jërëjëf nag Modou Lo ndax or ku ko dul takkalee du ko jox nit am nañu mbégte ci yow ñoo ngi lay ñaanal yal na la yàlla defal jàmm lii sport rek la jërëjëf. léegi nag dama bëgg ñu ànd. Eh, DJ Mbassa Mbassa léegi nag dama bëgg yéen ñëpp ñu ànd ñu déglu kàddu yi nga xam ne moom la Boy Niang di yëkkati di kàddu yoo xamante ne mi ngi jëm ci Modou Lo ak ñi mu àndal ak écurie bi monsieur Yacine gërëm nan la sant nan la ba may jëkk gis Modou Lo ñaar laa gisandoo muy ngay tëgg muy bëre muy daan nga koy bàkk tey jii ini berenang modlo, modlo dan na ak Modou Lo Modou Lo daan na Boy Niang waaye toujours c'est des frères ñoo Bang de ñoo bokk baay li sport la te fii la yem Boy Niang kaddu. waaw salaamaaleykum ngi nuyu ziar bu waaw kay ñu ngi bu di ñëw passer parce que dañu wara remplir suñu contrat bi ci ak Gaston production ba ci jaar di nuyu suñu papa suñu lepp muy Gaston Meng ko ñaan suñu borom defal ko tan bu baax a ba mu delu ci ñun bi di nuyu Makan mo mi nga xamanteni moko moo ko jaar bu baax ba di contane bu baax di nuyu Modou adversaire maa ngi lay nuyu di la jox sa way frère wa di la ñaanal jàmm bu baax ba di la féliciter di la wax di teranga bi ñu defal yépp bari na yaatu na waaye ñu ngi ciy kontaan bu baax a baax comme ni ko wax rek laa moom moo nu boole suñu combat ba muy taxaw ñu bari dañ jàpp ne sax suñu combat maa yow du neex ñenn ñi ne ñaari mbër yi dañu rusante dañ jëf li dañ jëf li parce que sama waay nga xam bu baax bokk nañu yoo xamante ne suñu ay nit yoo xam ne ñu ngi jàppale di ànd ak bu baax a baax a baax ñu mësoon a dajee ci ñuy daje rek ñëpp xam nañ suñu complicité sama waay nga dañuy taxaw waxtaan afore mais li espoir la booba tax moo tax boo xoolee suñu face à face ñuy def boo bëggee combat bi neex dama ko sañagul commencé ko indi ay problème mais espoir moo demee noonu <laughs> waaw moo demee noonu ñu ngi lay félicité da ñaanal daw di am nga mérite bu baax a baax a baax te noonu la àdduna noonu la boo bëggee yegg fii rek da ngay ñëfe ba yegg fi nga yegg sàmp yow nga bëri ñoo yow nga daan ñu mais ñu koy sant yàlla bu baax a baax kon doon wuti suñu borom moo ñu may ñu sant nañ ci yàlla bu baax a baax di leen nuyu di nuyu staff bi nga àndal waa Rock bi yëpp di leen ñaanal jàmm bu baax baax di nuyu waa Pikine fi ma jógee ndax ne Pikine ak Passe ennemi nekkul foofu toor moo nekk foofu comme li may wax rek bu jeexee rek jeex na waaw ñu ngi kontaan bu baax di leen ñaanal jàmm bu baax a baax. merci. Ah, comme ni ñuy wax rek bis bi dafa amoon kuñ ko paree ne mu ne Amadou Ba ñu koy ñaanal jàmm bu baax Amadou père ñu ngi koy ñaanal jàmm ak gaa yëpp kontaan nañ bu baax a baax incha allah père ñu ngi kontaan bu baax merci beaucoup kontaan nañu tey su ma la si woon day jox soxla si tamit kontaan a waaw loolu kontaan nañ ci ci yow incha allah. jërëjëf léegi nag léegi xam ngeen lan moo des couronne bi xajal leen ko chaise bi ñëw. waaye waaye may leen ñu filmer li ñuy filmer ak caméra yi ñu jël ceinture baa ngi nii loxo yi loxo yi loxo yi loxo yi loxo yi bi moo ko joxe ndeysaan moom tamit bëgg Modou rek bëgg làmb dëkk Pikine kon artisan yi gërëm nañ leen jërëjëf bokk nañu ci làmb ji couronne bi bokk yi tey jii ñu ngi introduire après Manga 2 après Mohamed Ndao Tyson après Bombardier après Yekini après Balla Gaye Bombardier encore Eumeu Sène tey jii ñu ngi introduire tey jii ñu ngi takkal na ma tànkam pour la troisième fois ginnaaw bi mu daanee Eumeu Sène bi mu daanee Ama Baldé tey jii mu daan Boy Niang ñu war ko takkal li nga xam ne moo di couronne bi le roi le maire le numéro un Modou Lo roi des arènes le roi des arènes, et même la presse du film encore une fois merci Abdoulahad merci Gaston merci merci la 2 TV merci Bantamba TV merci l'arène nationale merci le CMG Merci les artistes. Merci encore Parcelles ennemis.